Jay ñëw na waaye yéen a ko dégg waykat bi moo ko wax moo ni jéey ñëw na te saa bu yegsee ngeen xam ne doomu géejawaay bi yegsi na mbokk kooku kañ la woote ñu ne bisu novembre 2021 la novembre 2021 arène dana yëngu ndax dañoo dugg Pikine sar ba biir ginnaaw lay jël doomu ginnaaw lay ne dañ koy sargal kookoon la ne honorable député la bataan gaynde gi ki teewal Sénégal ba xale Sénégal bëgg ba Sénégal ne ko kaay yow yaa ñu doy dañ lay jël teg la suñu penc ndaw tuddee bis boobu nga xamante ne moom la ñu boole ñaari gaynde ah jëli def nga lu dugg géej waaye jël Jackson boole koog naaru sokaas mi nga xamante ne xale buy jug moom moo lay feree ne mbokk yi dina am bisu la ci arène nationale jëy production ne dama ci sargal maam jaara gaynde gu mag gi waaye yemul foofu dafa dugg jëf soog a nekk jël fa ki xamante ni mooy Paul bu daaru boole koog demix bu bàcc seeraas booy bar Ibou Socé fils de Samsam moom ak Omre ñoo fay daje Zera Thiaray moom ak ñoo fay daje Rëm Junior dina fa daje ak ki nga xamante ni mooy Dal Bondé waaye Pape Ndaw moom ak ñoom ñaar ñoom ñoo fay daje mbokk yi bisu bis la boo xamante ne ni làmb dootu ko fàtte ba tax na képp ko xamante ni amateur nga ñi ngi lay woo ci bis boobu ndax jëy production bu yegsee Abdoulahat Ndiaye def ay combinaison ah mbokk yi xam ne làmb dekki na promoteur yaa ngi bu làmb neexee ñoo ko neexal ciy jëy jëy ñëw asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi aman mbégte contentement yi ñuy suivre sur Kewel Info jotaayu làmb ba tey ah déplacé wu ñëw Pikine ci Pikine ginnaaw raay ñëw seet champion boo xamante ni kon ni ma koy waxee rek def na fi lu nekk break ay ndaanaan ah ba pare nekkoon ci lutte simple bi ñu gëjoon koo gis nag trop kenn xamul nag ci li mu nekk ba léegi l'an mille gëj naa bëre combat baam ak feu dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci li nga xamante moom mooy waxtaan bi xam naa ne waa làmb nam nañ ko dina wax nag fu mu dugg xam naa xaw ma daan daa am xaalis xaw ma lan 2000 <laughs> day day dafa am dafa am problème adversaire wala daal dafa am problème choix ko ni ko gars yi di waxee mbër maa ngi leen di. naa lay siyaar Fama. sant yàlla rek di julli si yonante bi ah comme niñ ko doon defee rek. di nuyu suñ ñaari waajur kenn ki wàññeeku na ko góor ki yàlla na ko yàlla yaram di ñaanal suñ yaay mu yàgg fi lool. yéen mbooloom julli ñu fekkee te ñaan Sénégal jàmm ak àdduna bi yëpp gërëm di ñaanal sëriñu diine yi ak kilifa aada yëpp ñu ñaanal tamit suñu supporters yi suñu waajur yi suñu famille ak képp ku bëggee L'An 2000 daal te nekk Sénégal ak bitim réew ñoo lay siyaar di lay bëggee bu baax a baax di nuyu aussi waa Kewel Info ak seen ñi leen di seetaan yëpp. Ambour foo réer laa lay njëkk laaj foo réer yow foo nekk. <laughs> man maa ngi Sénégal de <laughs> man daw ma fen maa ngi fi ah. waaw ah. ah, oui. da nga làqatu wala moo tax nga toog ah loolu yëpp mën naa nekk de mais man moom maa ngi Sénégal mun naa am ma xewi mun naa am sama lampe yi fay. Ah. mais en tout si victoire laa jógee quoi. mais maa ngi ceene waaw. victoire kenn gisu la. ma jógee ma daal ba pare nag corona dafa am de. xam nga deux ans yëpp presque corona la corona la tombé laa ma jël ren lay soog tijji normal te dañoo dawalaat tuuti ñu tëjaat ko. loolu tax quoi xam nga rek tombé waral ay gaaf noonu la demee waaw. mbër tey kenn du fi nekk naan kan mooy l'an 2000 bien vrai que ne waa axlu làmb xam nañ la mais tey boo ñu doon résumé li nga xam te ne moom mooy sa carrière. sama carrière bëre dóor. comme sa carrière l'an 2000 fu mu fu mu juddoo ak fan na defee enfance am après après ñu ñëw ci li nga xam te ne mooy ci làmb. non l'an 2000 moom benn xale bu jógee Joal la xam nga doon bëre mbapat jóge foofu ñëw Dakar. continuer mbappat bi ay Grand Yoff Adrien Senghor xam nga terrain gaal gi Iba Mar stade yëpp bëri naa fa xam nga ay mbapat booy bambara ay ku nekk la mbapat yëpp daal mun naa la ne fépp fu ñuy daanee mbër daal naa fa mbër ci Sénégal. lëmbe làmb wala. fépp fu ñuy daanee mbër daane naa fa mbër amul benn mbër boo xam ne tombé nañ génération te daanuma la loolu amul. non maa war ñun ñoo leen mag tuuti. waaw. ñan nga déggoo li ma la xam nga làmb yi général ñun suñu suñu carrière ñun ak ñoom Mama Balla Ndiaye suñu carrière dafa yàgg ay génération génération génération waaw mun naa la sax waaw benn la rek ñooyu yëpp benn génération mais ama génération yi day fekkante boomat boo si yàggee da nga gis ñu lay fekk si chaque année day am ñuy génn ñoo dañuy ñëw fekk si la nga ànd ak ñoom noonu la demee quoi mais ñun yàlla daf ñu dogal suñu carrière lu muy yàgg yëpp ñu si benn yoon chaque instant rek dañ doon bokk si favori yi waaw waaw looloo waraloon suñu xam nga rek loolu tax siiw siiw siiw mbapat bi xaw a yàgg uh-huh. waaw mais mun naa la ne jamono ñoom Paul Maurice ñoom Malamine yëpp ba génération bi bëri naa ak ñoom. <laughs> waaw <laughs> mais mais après ci lañ jóge foofu xam nga. bàyyi mbapat bi nag dugg si arène bi quelque temps. bàyyi ko. non boobu xam nga ñaari ñaari ñaari kii boo leen boole day xaw a am bu sooxe quoi. saf yi doon ñëw nga xam ne peut-être. non non man bàyyi man bàyyi naa mbabat ay lan bàyyi naa mbabat deux ans delluwaat defaat résultat ma bàyyiwaat fi mbabat presque ay quatre ans demaat defaat résultat parce que xam nga loo miin rek. dama ko waaw waaw waaw dama ko miin quoi xam nga loo miin da nga ñëw rek daanaka dem noonu la demee mais. génération euh, man yaa man yaa man yaagu man ba ma ba ma mujjee jël làmb Ibamar Zambala laa daan final waaw làmb boobu mujjee jël làmb mag deux millions. mais mosoo rek mos na maa daan Grand Yoff mm-hmm. waaw. bëri simple waaw. Uh-huh. non non jo jot ñooñu ñëpp jot ñoo bëri. Uh-huh. waaw la xaw doole taxul nga ne xaaral mu génn sax bala maa booy. boo xoolee man instant yi sax laa ëpp doole normalement. Ah, instant yi nii laa ëpp doole normalement su ma doon mbapat nii nii instant bi laa war a gën a def résultat su fekkee jaar na yoon waaw. non mais xam nga booy booy booy bu saf ak garaawu saf benn la rek ak garaawu saf du gën a booy bu saf sax. Eh, booy bi eh, différence moom entre ñu gis ni booy yi comme ay ñoom Reug Reug ay ñoom Serigne Ndiaye ay ñoom Franc ak yéen seen bos ban différence la am. non instant yi la mu bëri gënoon bëri xam nga génération yi ñii nag ay génération bu dëgër lañ mais. bëriwuñ quoi xam nga tey ji làmb ji perex bu gars yi duggee rek fi nga toog mën ngaa ne làmb ji diw ak diw moo waaw waaw en général même supporters yi seetaan dañuy xam ne quatre personnes yi làmb ji du si génn mais ñun amul woon loolu parce que ñun dañoo dañoo favori dafa bëri woon ku dugg si rek da nga naan non kii moom tey mooy jël làmb bi te mën na daje kenn si yoon bi mu faxas ko mm. loolu taxoon mu garaawoon quoi. Mm. lu dafay faram nga dugg si ban année. lutte avec frappe parce que dugguma 2000 lan 2007. 2007 laa njëkk a bëri. maag Amadou Kabara. man 17 combats laa am. 14 victoires 3 défaites mosuma niil mosuma am combat bu yàqu tamit. macha allah. 14 victoires. waaw. daa tuuti wala daa bëri. non non non mbër yow yow mbër da ngay fóot sa carrière macha allah ñan ñoo la daal. man super jamono moo ma njëkk a daan ak euh, Garga Mbossé ak Forza waaw ñetti yooyu ñoo ma daan ñetti mbër yooyu ñoo ma daan. yan cinq mbër bokk ci biir làmb wala euh, euh, cinq mbër. Hmm. sama carrière daal xam naa. am na ay Saalum Saalum ay super étoile ay bébé Saalum xam nga ay Malaw Seras xam nga ay Amadou Camara ay Ibou Fall bëri de <laughs> daan naa ma sonn de <laughs> xam nga ay Aline Sey Fooruus la Fooruus laa mujjee daan foog naa. soo juumul temps yooyu moom dafa def dafa nekkoon dafa defoon année blanche te su mu juumul tamit. Euh, bon ak moom ñoo kii dañ koo daan. man dañ ñu daan ma. non xaw xaw xaw ma fu mu jógee woon mais man moom man moom instant bi daa fekk su ma juumul si la ma kii daan si la ma garga daan waaw suma ma juumul. waaw suñ combat si la taxaw. neex. waaw neexoon na si man de ndax maa daan. combat bu ñaar ay bërekat ngeen woon ay ndaanaan. waaw waaw Alioune Seye moom ndaanaan la ndaanaan bu mag la maa ngi koy nuyu au passage sax champion la te normalement war naa mën a jëlaat place am si làmb xam nga làmb tamit dafa am souvent da ngay tardé moom dafa tardé woon mais yàlla dimbal na ko ba mu génnaat yàlla na ko jik quoi aussi xam nga moom normalement dans les normes si loolu ñoom booy ñaa ay Ama Baldé yooyu la waroon dugg xam nga parce que ñoom ñoo génnandoo mais comme li ñu doon wax sànq rek làmb ji dafa bëri ay waaw xam nga lobby lañ ko mën a wooyee xam nga mafia xam nga mais nag gars yi sens lañ koy jiiñ nag xam nga sens nag daa sonn lu ñëw rek. Hmm? loo tuddee mafia. mafia mooy ku war a dem ñu jël la teg la si palaasu keneen comprendre nga wala nga daan sa combat comme ñu war laa invité invité beneen mbër waaw teg ko si palaasam léegi kon yow nga ñëw wax mais mbër bi nga xamante ne moom la ñu war a génne moom mooy wax sa palaas xam nga nit ñi ñuy seetaan dañ naan invité nañ l'an 2000 tey souvent xamal ma la ñi seetaan laan tey l'an 2000 lañ moo doon bëri tey moom lañ invité ñu ñëw ñu ñëw invité ñu invité Garga Mbossé comprendre nga xam nga plateau du plateau Garga Mbossé mais yow yaa la ngay wax trente secondes Garga Mbossé wax cinq minutes Lamine Samba mos koo def dama xam nga dama lay jox ay tegtal yu leer nañ comprendre bi ma daanee Bébé Saloum ma mu ma invité naa la guddi gi tey dimanche drapeau kii la woon bañu jóob suus drapeau MEDES xam naa di koy dégg comme yow yaa ko ci làmb xam naa ko dégg drapeau MEDES waaw waaw bañu suus waaw maa ngi koy nuyu au passage papa bu baax la waaw. waaw waaw voilà voilà waaw di Sénégal waaw paa bu baax la ku yëwoon ci xam-xamam la yàlla maa ngi koy nuyu au xam nga di nuyu waale DST Aliou mooy moo yor tout qui est non moo nekk université Cheikh Anta Diop lépp lu fay travaux moom moo ko yor moom loo ko directeur bi dénk Maguette Dior Maguette seen maa ngi koy nuyu xam nga di nuy sama gars joobee foofu yëpp kaw ba suuf xam nga mais mu invité ma ma ñëw ma toog ci plateau man gis naa garga man sib naa xam nga man ancien laa xam naa nu damaa boobu bëri naa garga ba daan garga ba ba garga daan ma léegi man dama dama daan Alioune Seye xam nga si déwén sa ñu jox ma bébé Saloum ma daan bébé Saloum mu invité ma daan bébé Saloum si guddi gi mu invité ma ma dem si guddi gi ma ñëwee rek toog ma ñëw toog ma gis garga mu toog man xam naa ne garga man lay xaar pour su ma waxee rek. moom mu ne ko garga yow laa demel garga daal na la xam nga lu ma la xam nga mooy loobi li ma la xam nga dil rek dil moo tax gars yi si mbir yi la ñu amee xaar si waaw yi xaaj bi yëpp nañ sant mbir yi gërëm leen koo dégg mu naan la ay mbir yi ay làmb dafa ma dara ay yooyu noonu lépp lu am lañ ko gërëmee làmb ñu si gën a bëri ñoom sax xam nañ xam nañ ni mu demee xam nga li ma la léegi nag ma toog ba ma déclassé di wax rek mun ne ma ko garga bëri nañ ban daan mu garga moo la daal mais na ko mais garga ñi ko daan yëpp laa daan xam nga tontu moom moom lu siit la muy wax rek du forox siit la muy yàlla yàlla xare àjjana moo ñu jàngal boobu tontu du forox comprendre nga mais ko garga mboose su koy waal da koo daan ma daan ko bii tey jii daan na ko ma daan ko limal ko trois mbër da ko Saloum Saloum daan na ko ma daan ko garga moom du bi daggee parce que li mu bëggoon may woo su ma noppi woon rek après garga ne waa laa ne mi looy tàggoo ji nga ma waxee loo xam nga lan la mu wax looy tàggoo si ku si ku bëre soo émission si ku bëre daan waxuma combat bi ni mu demee waxuma dara dama looy tàggoo la ma dóor. non dafa ñëwoon pour lancer ke. si sama si sama victoire si sama victoire waaw. ak yeneen ak yeneen ak sooy bàkku sax sooy bàkku nii sax gars yi mun nañoo jël micro central bi def ko nii ñu waaye ba yow Fatma yow ngay bàkku numéro central bi soo ko ñëw wala ay supporter am sooy bàkku mooy gën a xumb yow sa supporter te yow mun nga ko sax ëpp supporter. ci biir làmb ji làmb ji dafa bëri ay lobby de ji cent mille lobby fi nekk. ëpp na ko sax man maa la ko waxee noonu rek. Ah, maanaam ku nekk ak façon bi ngay teg. mais loolu nag foo nga nekk téléspectateur bu mag. walla xam nga ancien mbër wala nga nekk mbër bu mag xam nga ñun man moo tax su ma demee làmb lu si gën a bëri dama waaj damay toog rek di ree rek damay damay damay tiim kii bi damay mel ni comme ku tiim sama livre nii soo wàccee rek dinaa dinaa xam foo jëm noonu la affaire dafa bëri ay mafia. waaw dañ non dañ ci ñun dañ ci yàgg ñun dañoo bëri raw gàddu bëri bëri mbapat bëri xam nga drapeau chef de l'État bëri lu nekk CEDEAO xeetu bëri bëri nañ ko. kon dafa jàpp daa am ñi nga xamante ne ñoo bokk ci làmb dangay ngay foog ne dañuy jëmale làmb kanam fekk seen bopp la ñuy jëmale kanam làmb ñoru leen ñooñu ñoo si ëpp ñooñu nag ñoo rey làmb ji nii même sponsor sax ñoo leen dàq. sponsor yi xam nga sponsor yi ay sénégale comme ñun comme man yow xam nga ñun ñii suñu papa yi suñu tante yi suñu nijaay yi ak suñu dëkkandoo yi ñoo nekk si sponsor yi sponsor nekkul ay machine de ay nit comme ñun ñoo fa nekk ñu xam réew mi ni mu ni muy doxee comme ay nit nekkul ay jinne ay nit dafa nekk xamaraang ñu xam nañ ñu xew soo bëggee yëkkati diw yëkkati kee ñoo wax la dañu xam ne yow mii li ngay wax nii nekkul malgré ñoo ngi la jàppale mais ne suñuy dem nag doo ko yëg dañuy jékki-jékki rek quitté noonu la demee moo tax laa ma ji dee laamu laamu ñi ko rey maanaam ñi ko war a dundal ñoo ko rey. asi comprendre waaw ñi nekk ci biir ci digg ñànkatang bi yoo xam am na combat yoo xam ne boo ko seetaan yow mi nga xam ne yow rapporteur bi nga xam ne kii mooy daan kii te dafoo jën a jàpp mais yow yow comme yow yaa xam waxatuma ki nga xamante ne day seetaan laam jël ay millions ay centaine de millions dugal ko ci laam moom sax xam ne ne combat bi nga ko indil nii diw moo mun diw. bi ci kan hmm? ci kan la si ñu ñi ñi gars yi foog ne ñoo koy doxal te doxaluñ ko. exemple promoteur. non ñëpp la mbër yi am nañ point de responsabilité promoteurs yi même amateurs yi sax am nañ ci kii parce que parce que yow tey jii man yow benn l'an 2000 nga war koo jël boole koog Alioune Seye nga ne non non l'an 2000 ak ak Boussita comme la exemple quoi la damay joxe exemple rek nekkul damaa yeb Boussita wala affaire yi waaw comprendre nga wala nga jël benn benn benn benn kii poul kii nga jox ko doomu kii doomu kayre bi. jéen ngeen ne non non. waaw exemple damay joxe exemple rek ngeen ne non na ko jox kee parce que jéen da ngaa bëgg mu yéeg ñooy xoolal ñooñu ñëpp loolu moo leen tele dem. jéen boobu instant bi nii nii waroon na fekk ñuy wax ne jéen booy ñaa wala lii parce que xale la dafa toll si bëri mais duñ ko bëri la instant yoon lañ koy wutal yoon ay zigzag ku nekk dama gëm ne da yor sa appéage boo war a jaarale sa mbër. kon jéen moo la ante combat nekkul woon ak combat ah, kay. comme ñooñu ay moroom lañ ñooñu la war a bëri ñooñu ay moroom lañ ñooñu la war a bëri mais xoolal nii nii doo doo ko dégg ak yeneen moroomam de jël instant yi ñi ko daan sa dépassé na leen psychologiquement lañ koy yen ci bopp nit ñi télé yeeg rajo yi journal yi jën gargar ngay dégg ah jën Yékini Junior lañ ñu xool lañ ñu dóor la jën booy Niang léegi laa la nga gis ko si affiche da ngay mooy lobby bi ma lay wax léegi nag sponsor bi joxe xaalisam day dem ba xam ne ñii dañ may fonto mu téye affaire am yóbbu ko ci football comme football onze onze la moo gën a léegi moom la gars yi di gën di seetaan te moo gën a yàgg sa sponsor day am visibilité te lamb arbitre bi day jeex léegi ñoo commencé perte loo lamb valeur am yàgg naa ko wax mais leen lamb ji gars yi ngi tëgg benn lobby boo xam ne su continuer liñ bañoon dina amaat. kat comme ça ñu mel noonu suñ décoré woon amoo seen décoré comprendre nga ay Balla Gaye Modou Lo da nga nekk di tëgg Balla Gaye Modou Lo ba kañ bëree gum nañ fois waaw waaw. ñooñu xam nga peut-être léegi ñu bàyyi làmb Gris boordoo su bàyyee. Bombardier génn ñooñu kii Modou Lo ak Balla Gaye rek ne benn booy léegi bu ñu préparé pour bëri. Lac de Guiers Balla Gaye duñ bëri. léegi gis nga foofu noonu dee na moo tax làmb ji il foog ñu def ko nii ñu ra foog foog ñun ñii ñëpp ñu dem léegi booy yi nga xamante ne ñoo nekk ci suuf di jóg. no pas jéen sax booy yi rek nañ bu ñu lim tur nañu wax booy yi rek ñi nga xamante ne waaw léegi nag ñu bëri seen biir. parce fexe nañ ñoom am nañ chance parce que fexe nañ rejoindre ci kaw. waaw mais duñ fa yàgg ñee ñu fekk duñ fa yàgg ñooñ dañuy dem léegi ñoom daa waroon am ñu nekk seen seen ginnaaw nga xamante ne ku daan ak ku daan da lay for jël est-ce que nga mais tey yow tey ñeme ngaa dem pikit fii ngeen ne ngeen ne booy ñaa ak jéen combat la dañ laa yow dañ ñoo yëpp <laughs> comprendre nga soo nee keneen ak keneen exemple soo nee musaandooy ak di danaan du làmb te pourtant normalement ñooñu ñëpp dañoo waroon di bëri. Moussa Ndoye làmb làmb làmb la rek suñ d'accord war nañoo mën a bëri combat bu neex la waaw. wàllu bi dafa mel ni pare nga pour may booy chance. kaman non fi ma toll nii du ma dëkku benn bër. waaw waaw normalement. non normalement làmb ku ma booleel ma bëreeg moom mais du ma dëkku benn mbër. mais booy bu ñëwoon ju fay waaw cachet normal laa wax de waxuma ay cachet yaa ma neexee de non non. mais ci booy yooyu noonu du ma lim man tamit. du ma def du ma def benn choix benn booy. non du ma def choix man instant yi passé naa may defee choix booy. booy kay booy kay mooy def choix ne jox leen ma diw. bi nga toog. ñëpp di di yàkkamte l'an 2000 ñëwaat. Hmm. tey boo toog bi nga toog est-ce que tamit jarul. donte du question défier nga may benn booy chance booy boo te ni comme prouvé na kon li nga wax. may may naa Fóorus chance daan ko kay. xanaa nag doo fi nekk non dégg nga ma bu Fóorus ban booy moo gën a saf ban booy nga gis fii bu mun Fóorus fii avant ma ko. ba ko daanee la commencé waat de amaat ay defet comprendre nga te làmb noonu la ko waa yenn saa yi day neex souvent mu naqari xam nga du comme ni ñuy wax du biir day xëy rek wasit làmb ak géej ñooy yem noonu la demee. du bëreeg soo. kan non non. non du bëreeg moom non non. waaw ñoo bokk luñ bokk dafa bëri sax waaw. waaw xam nga xam nga daje nañ ci combat Sa Thiès su ma juum Moussa Ndoye nga interview ma. mais la yàlla Moussa Ndoye daan mais gëwuma ko. gëwuma ko waaw. comprendre nga. nga ne ma Alioune Seye mais la à quatre-vingt-quinze pour cent Alioune sax Sa Thiès mi mun na koo daan waa waaw yàlla Moussa man ndax moom laa faral mais góob ma ko su ma doon teg sama xaalis Sa Thiès laa ko teg man logique rek laay wax quoi du ma wax ndax nit ñi kontaan xam nga li affaire internet la da wax gars yi commencé bind commentaire yi xam nga la ma la tax lu bëri sax du may génn ay ay kii parce que daanaka rek xam nga rek ñi dañ gaa yi duñu xam fi ngay waxee duñu xam yow it ban genre nga parce que boo ko soree rek doo ko xam mais sama position rek laay wax si làmb après anyway mu jeex loolu moom moo am noonu la demee waaw saa waay jekku na ko mais mënu koo daan mënu koo réaliser waaw préparé wu loolu dem na uti ko rek waaye préparé wul finition bi am na ko quoi mais utiliser wu ko te ba mu amee rek normalement daa waroon utiliser mooy daan mais danga koy xool rek nga xam ne loolu day am ñun es ñun dañuy xamante suñu biir waaw su gaa yi duggee nii daw nii di nga xam ne kii dina uti mais tu amee it mooy loolu du ko jëriñoo <laughs> waaw. lendemain est-ce que parfois di nga gis mbër rek tey mu mbër mi war a bëre ba mu egsi ci heure bii rek nga xam ni carrément tey sa waay ji jekku nañ ko wala sa waay tey mënul daan kii est-ce que parfois yéen loolu di ngeen koy gis. ñoom man làmb keroog bi keroog bu ma mooy boobu njool bi Paul. Mm. ak euh, kay non non dernier combat bi Paul mooy nekkureel ak Marley avant avant combat bu sifflé gaa ñaari gaa yi mu toogal ma nga la naan pourtant Koul daa foog ne mooy daan mais soo moytuwul nañ ko daan parce que li mu foog amul booy bii nii dollar la day yéeg di wàcc te tey daa mel ni daa yéeg xam nga non loolu ay xam nga làmb xam nga làmb boo si yàggee da ngay mel ni waaw waaw da ngay da ngay da ngay am da nga da nga koy maîtriser xam nan laa la ko mën a waxee mais da ngay nekk seytaane làmb comme nga mur mun nay dox sax nga xam ne kii moom arbitre bee ko fi bàyyi daal na bu yàgg. xam nga da ngay dema dema danga nga koy miin daal. mais après mais si seen kii yi rek seen seen doxalin yi forme physique bi booy bi indi keroog xam nga ak Paul seen façon bëre yi xam nga Marley dama soxla mbër buy bëree pied gauche jox si kawam te leer na ma arbitre bu sifflé moom Paul si kawam la jëm direct. comprendre nga léegi léegi problème bi mooy Marley su jàppee est-ce que dina exploité wala du exploité su exploité rek mooy daal loolu moo nekkoon différence bi. ne làmb ba léegi làmb dafa am ay tegtal ndax léegi dañoo gis ni gars yi lépp loo xamante ni lu baax lu neex làmb da nga gis mbër di ko di ko saraxe fruit da gis fruit yëpp xeet fruit yëpp ay banaan xam nga ay ay orange <laughs> ay pomme xam nga ak non noo comme yéen mbëri ay mburu xam nga tàndarma suukar mais loolu dañ leen ni boo ko saraxee da ngeen di daan wala nu mu demee noonu lool sarax yooyu nag yàgg na si laamu de c'est que internet yi ñëw génne affaire yi léegi mais Zarax moom yàgg na si làmb. mais bi day neex wala parce que sarax yooyu dafay neex. neex la quoi waaw ah, mais sooy sarax nag da ngay lu nit ñu bëgg de si mm. sarax yëpp la même yow sax caméra bi sax ngay def ni soo bëggee mu siiw da ngay saraxe lu neex. mais la déggoo li ma la wax xanaa sooy saraxe tey jii suñu la waxee dama saraxe ginaar bul dem jëndi ginaaru 1500 yi da ngay dem jëndi ginaar bu baax nga xamante ne koo ko sarax koy lekk non xol bu sedd rek ñaan la sérieux nag nekkul mbalak lu ma la wax nii de nga jën ginaar bu baax nga saraxe ko mooy tax mu gën a jàpp mais soo demee jënd sa ginaaru 1500 yi wala nga jënd ginaaru élevage boo xam ne amul yàpp bu nee na nee son boo saraxee du jàll. <laughs> mais sëriñ bi moom moo lay du stratégie de ah man bokk man su dee man la moom du nekk stratégie. maam ñoom dañ pour folklore nii rek moom. na nekk xam nga mbëri nag dañoo bëri bagage parce que mbëri bëri même téere ñuy takk sax en baaxul. waaw ah, mais loolu mënul baax yow da ngaa mën a takk vingt laapataake dóor nit ki vingt fois daanuwul laapataake xalaa bu nekk bu indi woon cinq pour cent sax nga am cent mooy loolu. yi dañuy gis ni yéen da ngeen koy def yéen bëri da di indi foofu yu bëri boo leen nga pour lan tamit. mbër a ko indi daa mbër yu koy indi. ah, ah parce que loolu man mosuma indi pigeon si làmb de non xaw ma moo xaw ma ko moom wax dëgg yàlla ndax xaw ma ko. bëri ay loolu mbër yi koy def dangay dem nga laaj leen ko. am na mbër yi koy def xam nga askan nekkul dañuy yar ay pigeon rek. xam nga làmb tamit affaire culture la xam nga loolu dafa rafet ci làmb. waaw loolu tamit xam nga làmb tamit aussi aar bi daa am ñoo xam ne loolu la ñuy seetaan si làmb xam nga mbër bi ñëw bu bàkku benn Ama Baldé bu bàkku jël bitel ba mag bi yëngal yëngal dóor xam nga génne affaire bi nii nii loolu dafa rafet ci làmb mais mais xam nga tey soo fekkee da nga ñëw rek bëri nii rek dem kii seetaan. xam nga làmb moom ay 30 secondes ay wër na ko ndaw bu daan na ko yooyu xam nga loolu du lam làmb dugg si bi ak sërul rabal bi xam nga ay yus xorom bi téye bay jën koo bi sóob ñoo xam ne loolu mooy ne mbër bi mbër bi di dox noonu ceene bi di génn xam nga <laughs> ku nekk ak la lay moo tax doo bàyyi benn détail quoi. Uh-huh. parfois tamit dañuy gis tamit ci digg géew bi yéen mbër yi sa moroom mbër bu tegee paa ngeen tibb suuf bi tibb suuf jël ko parfois da gis sax ay njëkkante. loolu loolu loolu nan la comme si pa paawu mbër mi quoi comme mbër bu tegee tànkam bu tànk bi waa loolu loolu loolu tamit pour lan la ah est-ce ko nekkul comme yow dugal ko si tegtal yële rek dugal ko si teg tegtal fusion bi rek <laughs> dama bëgg ñu parce que gis na yooyu noon am na ñu bari am na ñu bari sama classe gi quoi dañ koy gis xam nga làmb dafa bari lu ci nekk te ñun boo gisee ñun dañuy ñëw wax rek ñaata combat la def nangam te am na loo xam te ni il faut que tamit ñun ñi nga xam te ni dañ cee nekk ñu xam lu bari parce que tey bu ñëwee ne palmarèsu l'an 2000 l'an 2000 après dem te làmb dafa bari ay loo xam te da ciy nekk tey ku ci mel ne l'an 2000 nekk na koo xam te ni dafa xam laa ko def tibu tànk loolu loolu mbëri ko dul def de man man defu ma ko man defu ko. man de tibu la. non askan nekkul dañ leen koy tegtal rek xam nga làmb dafa bëri ay tegtal. ku nekk ak say bagage nga léegi moom mu naa ne xam nga bu njëkk sëriñu làmb yi bëri ñu woon mais léegi nag sëriñ boo gis muy ñaan mooy jay ñaan si làmb parce que comprendre nga li léegi nag ku nekk sa façon la looloo tax façon gaalaaj yi bëri façon gaalaaj bu nekk ngay gis bu njëkk ba gaalaaj làmb yi bëri wuñu woon temps ñoom ay Doubalès ay Robert xam nga ay Faalaay Balde ñooñu sooy seetaan seen archive yi Félix duñ teg sax ay vingt biteel te xoolal ay champion yu mag la ñu woon kenn ëpp woon aussi gaalaaj mais léegi nag affaire yi waaw waaw waaw léegi non gars yi ñu yóbbu ñaari oto waaw non non man kay saak sax saak bi sa du fees souvent ah. non non. Ah, comme mbër mi sol dàll bi ba war a dugg ci géew bi nga gis ni da gis ko dañ koy diri di ko diri di ko diri. xam nga loolu yëpp aar la yëkkati dàll ak diri dàll ak dëpp dàll yooyu aar la xam nga làmb dafa bëri ay tegtal sëriñ boobu dem ak lu mu lay wax léegi am na mbër yoo xam ne nag duñ bàyyi détails yi détails yi yëpp la ñuy def. mais am na ñoo xamante ne américain yoo xamante ne xam nga ñoom luñ gëm la ñuy def quoi xam nga ñi nga xam ne ay sotti biteel ay takk gàllaaj bi dem bëri yeneen yëpp dañ koy bagane te pourtant ñun ñoo ngi daan. comprendre te souvent daan mbër boo xamante ne mbër cosaan lay nekk. comprendre nga moo tax yooyu du wax nag amul quoi mais nekkul 100 pour cent. comprendre nga jàpp soo ko jàppee baax na parce que aar la te la am affaire culture la mais soo ko bàyyi góob ma ne dina la wàññi dara quoi. man góob ma loolu. mbëru féticheur dafa am ak mbëru simple loolu dafa am. mbëru féticheur. luy mooy ñi xam te ne dañuy takk lu rouge li nga xam te ne buñ takk buñ toxee lu rouge rek en général da nga naan ay <laughs> ay fétiche lañu non xam gàllaaju rouge yi. xam fa da ngay dégg ñu naan kii day fétiche wala. <laughs> loolu moom ah. bu buñ may interview ba léegi maa ngi koy soog a dégg tey <laughs> loolu xamante ni man damay dégg ñu ne mbër yi comme par exemple nga gis kenn ku takku lu rouge ñooy tegtal la ñu ne kii de fétiche comme xam nga wala ñu ne lu rouge lii nii baaxul dañ koy daan parce que dama koy dama ciy gis ay mbër yu def loolu ñooy ñii dañuy fétiche wala wala loolu xam nga ko mbëri takku yu wax la bul bul bul déglu gars yi di wax si télé ak rajo yi nii bu loolu mooy sa nopp ba yaakaar ne li ñuy wax yëpp kii dëgg la de yu si gën a bëri dañuy neexal rek pour pour jaay non gàllaaj gàllaaj bu xonk yàgg na si làmb yàgg na sax àdduna laay wax comprendre nga gàllaaj bu nekk ak nu ñu koy awee xam nga ak lu muy àndal comprendre nga comme mun na rouge comme mun na weex comme comme mun na zone gàllaaj moom gàllaaj la rek gàllaaj moom gàllaaj la en tout cas dañ ko takk wala souvent mais mburu bu mburu mburu féticheur moom boobu maa ngi ko soog a dégg boobu moom bu wees la moom boobu moom yaa ko dajjil sa bopp Fatma boobu moom boobu moom sa yëfu bopp la boobu moom bee moo garde ko non boobu <laughs> koy garde pour yow boobu pour yow la de <laughs> non c'est <laughs> non parce yow amoo laaj bu rouge. non loolu ñëpp ko am mën na nekk de mën na nekk xam nga tey mun na mën na jox na la aw ko rek yow nga préféré def lépp lu rouge mooy li ma lay wax affaire culture rek lamb affaire aar la quoi waaw xam nga rouge dafa fës lamb affaire aar la. am ñoo xam ne da ngeen di wax ñu defar ndox ndox bi na nga nga gis leen ñu indi ndox bi mu zone xam nga loolu tamit aar la. seen xam nga mbër yi dañoo bëri ay façon xam nga gars yi rek wala amoon naa benn mbër boo su demee si sëriñ su ko joxul téere tànk nee sëriñ bi xamul dara nee na foog mu jox ko benn téere ko quoi mu soo xam ne kii dafa ay xam nga waaw xam nga kooku esprit foofu la toll na koo xamante ne laapataake la bëgg am na mbër boo xamante ne bëggul takk waaw noonu la demee rek làmb affaire aar la mais conscience tranquille moo si ëpp doole loolu yëpp sa conscience tranquille moom pour nga nekk mbër day yomb waaw loolu moo waaw loolu moo gën a moo gën a moo gën a jafe nag pour mbër am ko mais moo gën a baax si mbër mooy booy bu ma lay wax noonu booy fay boobu ma lay wax conscience tranquille moo ko manqué si làmb parce que duy concentré wu lu gën a bëri tey xam nga yenn saa yi fu mu war a gañee làmb bi la koy saboté xam nga làmb keroog bi loo ñàkk ñàkk xam làmb xam nga Franc nag champion la waxuma ko dara mm-hmm. mais di nga xam ne booy fay bii normalement moo làmb bi mais consé concentré wul. waaw concentration waaw mooy conscience tranquille nga xam fi nga jëm làmb bu nekk étape par étape xam nga ni ngay def ba jël ko mais malgré amul loolu moo tax waa da ko jaafee expérience rek ngay dégg gars yi daan Franc daa concentré lii non conscience tranquille la am quoi loolu dafa baax si mbër mhm, surtout maa nag mbëru mbapat. boo conseil boo koy conseillé lan nga muy concentré wu. waaw parce que mun na bëri xam nga mun na bëri mat na mbër aussi. gàllaay am na ko wala amu ko loolu moom wóoruma mais ñaar ñi ñaari gën a am solo si mbër am na ko mooy mën na mbër te day entraîné parce que boo gisee yaram bi nga xam ne kii mu ngi daj ay coono si yaram bi quoi comprendre nga mais concentration rek mais ay gàllaaj yooyu moom xam nga loolu moom moom la <laughs> su ko neexee mu uti ko ko neexee mu bañ ko mais lu gën a jafe am na ko muy mun bëri ak mot mbër su concentré woo ñaari la moom sax dina xam ne grand bi lu muy wax dëgg la waaw